yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabilalamin arahmanirahim aleyk yawm ddin salawatullahi wasalaamu ala seydina muhammadin abdihi wa mbokki julli ji asalaamualeykum wa rahmatullahi wa maa ngi leen di nuyu di leen massawu di leen balu àq di leen ndokkee lépp ci bés bi nga xam ne noo ko bokk te moomunu ko sax muy bésu sëñ Touba te mooy bésu lislaam waaye yàlla dimbale nañu di ko feeñal di ko bokk di ko daje yàlla nañu ci yàlla defal kenn ku nekk la nga bëgg ñu ngi nuyu ñëpp tàmbalee ko ci sëñ Maxtaar Kanji mi nga xam ne mooy njiitul mbooloo mi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko seq ak moom di nuyu tamit di nuyu ñëpp nag ci turu sama mbokk yi fi nekk ñii di ay rak ñii di ay doom ñii di ay bokk ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ci seen tur di nuyu tamit kilifa yi teew madame Soxna Xadi mi nga xam ne moo fi teewal euh, euh, gouvernement Sénégal teew fi président de la République di ko nuyu bu baax ci teewaay bi di ko sant mu jot lu ñuy suñu nuyoo tamit ak ci président ak mboolem gouvernement di nuyu tamit association yi fi nekk ak honorable député yi fi nekk wax ngeen ko sànq Abdou Mbacke Ndaw suñu doom ak Déthié Fall ak Pape Djibril Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit Alioune Guèye mi nga xam ne moom itam nekkoon na ak ñun ci bi ñu tàmbali fële ci yenn dëkk yi wante di nuyu kilifa yi nga xam ne yëpp mooy mboolem daayira yi nga xam ne ñëw nañu tey fekk te jóge fu sori tax coono bi wante tamit di nuyu soxna yi ak ndaw yi surtout xale yi sànq gën bi ñuy soog a ñëw jaar nañu ci seen exposition bu ñu def fekk démb tamit biñ ñëwee ci bésu soxna yi gis nañu seen taxawaay wax nañu tamit fi ñu toll ci liggéey bi muy loo xam ne lu dal xel la dafa mel ni at bi liñ ci gis lépp dafa xar kanam bu wëlbatiku la boo xam ne fa jëm mel na ne koo defe woon sonn na koo xam ne dafa waroon a taxaw noppalu nga gis ko mu mel ne dafa saxaat yeneen tànk ak yeneen loxo wante yeneen jëmm ngir bëgg gën a demaat ci kanam lool gis nañ ko ci bu baax ci ci at mi gis nañ tamit mbooloo mi xam nañ ne jamono bi xat na yéen a ngi ci liggéey du bés liggéey la du bésu feet ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ci ay njaay xam nañ ne jamono bi jamono liggéeyu njaay la waaye dafa mel na loolu lépp dafa tax mu gën a far yokk pas-pas bi ndax xam ngeen ne lépp lu loolu li wane rek mooy yéen li leen fi indi ni ma koy waxee autorités yi suñu leen gisee ne leen ñii ñëw ñu fi pour wut xaalis parce que wut xaalis ki koy def da koy def muy ab jëmukaayam noonu laa koy waxee jëmmukaay bokkut ak jumtukaay ki koy wut te def ko jumtukaay mooy yéen nga xam ne moom daf cee bëgg tey ak ëllëg moo tax lépp loo xam ne lu diina taxawal la lépp lu baax nekk day bàyyi lam defe nañ wutum xaalis la wala wutum alal la te loolu bokk ci liggéey bi waaye day daal di jël li nga xam ne moo moo war a jiitu loolu mu teg ko ci kanamam te loolu moom ngeen def kenn kenn ku ci nekk sa waxtu ya nga bàyyi ak sa leen liggéey ba nga bàyyi ak sa njaay ya nga bàyyi yàlla na la yàlla wóotal la lu ko gën te defal la ci jàmm ci barki Sëñ Tuubaa bis bi nag ni ngeen ko xamee at mi lañ ne mooy ñaar fukkeelu at ak ñeent ni ma ko waxee sànq ca démb ci ci préfet bi wala ci Euh, église bi évêque bi <coughs> wala ci maire bi ci suba mooy ñaar fukkeelu yoon ak ñeent bi ñu amee proclamation bi loolu li mu firi rek mooy mooy première proclamation bu am ci Afrique ndax bi ci njëkk sëñ daal lañ ko jox ci New York ci 1989 la defe naa wala 88 yooyu la kon fanweeri at ak juróom booba ci New York ak bi ñu defoon ci Los Angeles moom itam euh, jege na loolu quatre-vingt quatre-vingt ay ay ay ay soriwul foofu ak bi nga xam ne moom lañ def ci Washington ak Atlanta lépp doo ay proclamation yoo xam te yooyu ay dëkk la wante ay état la proclamation yëpp dafa wane ne foofu rek la am ci États-Unis d'Amérique mais Europe moom fii moo ci jiitu muy itali kon loolu du ñu jaaxal ku xam taarix ci histoire diine xam ne Italie bokk na ci euh, barab yi nga xam ne diine dafi mas a nekk yéen a ngi xam alif laam miim ghalabatu Room nga xam ne romain yi ak perse yi ba yàlla ba ñu eggee ci foofu ba ñu nodd leen yàlla moo wëlbatiku delloo leen ko ndax ñoom ñoo yoroon diine kon loolu lépp dafa firndeel ne kon loolu histoire rek mooy dellu histoire <coughs> ñu di leen gërëm bu baax di gërëm ñëpp nag xale yi sa surtout nag ndax ni ngeen di gërëm sëñ Abdou Aziz ndax def naa moom exposition yëpp moo ci indi waaye bu soobee yàlla danañ gën a waxtaan xool yëpp yoo xam ne boole ci nag taarix boole ci histoire di gërëm bay Guèye Sylla tamit ak ak livre bi ak professeur Galaye gis nañ euh, léegi sànq tamit ci conférence yi nga xam ne moom la doon def ndax tamit xam ngeen ne conférence bokkul ak ak waraate waaraate euh, conférence da ngay fokk nga gëstu fokk nga wax nit ki loo xam ne <coughs> da koy ab ab bind lay doon ci moom foog nga génneel ko loo xam ne tamit mënu koo gis ca kaw moo tax du lu yomb te gis nañ ko bu baax soo sànq bu wax waxtu bu nekk mu ngi góor góorgóorlu ci gëstu ndax ndaw la waaye def mën sa noppalu ci loolu ñu ngi ko ci gërëm di ko félicité bu baax di leen gërëm nag yéen jamiya bi jarul may tudd ay tudd ndax jàmm yee ngeen ko wax maanaam dafa mel ne kon amul amul amul tàggale ko oh. ndax euh, li leen boole du alal du matériel du du daraja moo tax boo ñëwee ñu ne la tey Matar Kandji moo jiite boo ëllëgee du mbaw boo ëllëgee nàngam loolu ay tur la rek waaye ni ñu ko gisee ak daayira yi nga xam ne yëpp moo moo nekk ci réew mi gis nañu ne ku fa nekk boo fa nekkul buñ buñ toogee tuuti ñu jël keneen jiital ko ngir noppal la nga toppaat ci ginnaaw loolu mooy ànd boo xam ne àndu àndu àndu àndu yàlla la lu mel noonu nag moo tax fii basa barab bii tamit ñu am ci ñu xam ñu am ñu ñu ñu xam ne lii na fi représenté l'islam ndax lislaam ku ne xam na ne jamono bii mës mi ngi nekk ci ay fu ne nag nag la àddina nekk nekk nekk ci ay ay ay loo xam ne dafa niiru jafe-jafe waaye dafa nekk loo xam ne mës a tàqale ko ak aadama ak ak noonu ndax waxtu bu nekk maa ngi leen di fàttali ne nit mënta ñàkk nekk ci ay jafe-jafe boo xoolee ci àdduna crise bi njëkk am ci àdduna amul sax ci àdduna mais ci àllaaxira la amee ndax bu fekkente ne aadama dafaa nekk nekk ci lu baax wala wala wala bokk ci beneen at desu ko tuddi sax àllaaxira ndax boobu àllaaxira ñëwagul waaye li ñu mën a wax ci àjjana la jóge ndax boo jógee suñu borom jëlee aadama ci àjjana mu nekk ci ay ay bànneex lépp ne fa mu xëy sànni ko ci barab boo xam ne dara néew fa defe naa crise bu ñu koy wax dëgg-dëgg foofu la déparé jafe-jafe diine am yépp it ku xam histoire diine mu xam ne mëstu noppalu saa bu nekk nag jamono bu ñëw rek gis ngeen jamono yee mbas yi fi amoon waaye bu ñu xoolee taarix it histoire it danañ xam ne loolu mosu fee jóg ba doomu aadama nekk ci ko suuf ba léegi saa bu demee ba defe ne fàtte na ne am na lu ko bind wala am na fu mu àgg bu boobaa sunu borom dana ko won won googu nag bu ko gisee dana delluwaat ginnaaw xool fa mu jëm bu ko gisul nag day gën di falax falaxee rek yëf ya di gën di metti kon nag yàlla na ci yàlla musal kon fi toll nanu delloo si suñu xel te xam ne àdduna bi boo déggee ñoo ne àdduna yàggul dund nit dafa yàggul diggante bi muy nekkee ndaw diggante bi muy mane ak diggante bi muy tële ak bi diggante bi muy faatu daanaka étape la yoo xam ne dafa mel ne dafa taqalee doo ci yëg dara lu ci nekk dana ñëw ba dem kon suñu ci nekkee nañuy bàyyi xel lu bari tey gën di bàyyi xel kilifa ndax damay wax ne léeg-léeg nit ne la ah yow de yow waaye dafa am alxuraan dafay wax ne wa atiixu llaah wa ulil amri minkum ulil amri ci alxuraan ci baatu déggiin nekkul nekkul ku ñuy dégg mais ku ñuy déglu la ah. képp ku wax ñu dégg la mais déglu nag ulil amri lañ koy def ñooñu nag bariwuñu comme ñooy sunu kilifa yi moo tax ñaare ñun dañuy wax ne lépp loo xam ne niveau boobu la àgg dañu koy bàyyi ci kilifa yi bu boobaa ñoom ñooy seen mooy seen mooy seen doxin ndax loolu yàlla moo leen ko sant ndax ki ñuy dégg mën nga koo dégg rek te doo ko déglu mais ki ngay déglu moom mën nga koo jëfee loolu moo tax alxuraan di xàjjale xaajal ulil amri minkum ndax bu atee atew la temps yàlla la ko jagleel teg ci ab yonentam teg ci nit lépp dellu ci yàlla kon baatu temps boobu kon lu sérieux la lu lu rëy la ci doomu aadama mooy ki nga xam ne buñ ko bu waxee fokk ñu déglu ko te buñ ko dégloo la ëpp mën nañ koo jëfe kon ñooñu moom tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla muy sunu kilifa yi yàlla bàyyi leen fi li ci desit ñu gën a góorlu ci fi jamono toll fi jamono toll gën a góorlu gën a nekk ci lu baax gën a jéem a sàmm ba li ma doon wax léegi rek tubaab yi mooy sunu réew yi euh, Sénégal yàlla may na ko lu bari te bari na ay ñu ko xool ci lu ne ndax te yéene wuñ ko fu mu toll kon nag noonu tam nan xam loolu euh, fii nu toll tamit ñu ngi gërëm ñëpp di ni ma ko waxee xale yi ma dellu dellusiwaat tuuti ci xale yi ndax yéen mag ñi fi nekkoon mag ñi fi nekk sëñ Bachirou Dia ñoom ak ñi nga xam ne ñëpp jóge nañ fi yal na leen yàlla yërëm te ñii fi jot nekk yal na fi yàlla bàyyi lu yàgg waaye ni ñu doxalee dafa dal xel ndax mbir mi damay wax ne nekkul nguur euh, dam man fi ma njëkk a waxee ne baatu nguur euh, lépp lu jëm ci diine wala ak cëriñ responsabilité la wante de pouvoir maa ngi ko njëkk a waxee ci barab mbir moo xam ne sax bëgguma di ko faral sax nettali ndax day xaw a niru yëkkati ko wala ngay faral di booba euh, ci sëñ Alaaji Baara la sëñ Alaaji Baara bi maa ngi koy Moustapha Mbacke moom sëñ Alaaji Baara bërki démb daf maa woo di ma wax ne dafay dem màkk bëgg ma koo yëgal bala moo dem ñuy waxtaan ba mu ne ma ba sëñ Alaaji Baara di yónni menn mbokk ci ci ci man ba sëñ Saaliwu demee fa la ko fekk mbokk ma nag bëgguma koy tudd ndax damay ba mu déranger ko loolu booba dafa wax ne sëñ Alaaji Baara dafa nekkoon koo xam ne defe naa nekk na fii ba tàyyi ñu tàmbalee wax mu ne ab Ablaye mu jékki-jékki woo Ablaye Mbaye ñu jox ko kàddu gi ci biir mbooloo yépp ci rajo téléphone mu wax wax ju rafet ndax sëñ Moutalla euh, ku ne xam na ni nekku fi woon lu dul yàlla rek la fi nekk loon comme doomi sëñ Touba yi waaye binnaaw ba mu demee tamit xaw na jafe lool bariwul ñoo xam ne dañ la gën a soññ di la fitloo di la di la di la di la dëgëral Alaaji Baara nag bokk ci ñooñu moom moom sax mën naa wax ne moom képp ci jamono jooyu ju metti jooju moo ñu doon dalal xel du ñu dëgëral bi muy waxee sëñ boobu suma doom boobu mu ñëw ci man Moustapha ma ko doon wax ba ci démb euh, daf ko wax ne ko na ñëw ci man wax ko mbax ma ne ma dafa bëgg ma yaroon ko kàddoom ma ne ko nee ko attanu ko kooku tontoom la moom bi ma demee ca moom nag sëñ ma ne ko sëñ bi loolu boobaak léegi mësuma ko nettali ndax fukki at ak juróom defe naa mat na ko wala bu si suñu alaaji baaraak bi ndax bëgguma di wax loo xam ne day niru ak yëkkatiku wala leneen wallahi la sim moo ma ko wax mu ne ko damaa bëgg ma ne ko loolu dafa diis ci man ginnaaw bi ma dem ci alaaji baar suñu alaaji baara ma ne ko sëñ bi xam naa bu baax taxaw yi nga may taxaw ak fii mu teg waaye li ma wax ñetti baat nga am benn bi yaa ko moom muy bu sëñ fàllu yàlla na yàgg yow te boobu àttanu ma ko mooy bu sa ba sa bopp mooy sa boo xam ne bu allah ji baara ci boppam ma ne ko boobu yaa ko moom mais attanu mu boobu ñaari ci des nag muy bu sëñ Fallu bi dafa fekki bu sëñ Touba ñaar yooyu nag moom moo ci benn ba di ko joxe wallahi la asin kon ñun loolu mooy li nga xam ne mooy suñu doxiin ñun lépp lu ñuy def yàlla rek lañ ci seet wutuñu daraja wutuñu alal wutuñu bayre wutuñu ak wutuñu euh, mbooloo mbooloo mii kat ku jàpp ne yaa tax ñu tase fi danga am problème bu rëy kenn ku ci nekk la la fi indi sëñ Tuubaa rek la ñun nag yàlla may nañu chance ba mësuñoo toog benn minute lu mbooloo mi bari bari bari bari ak luñ nu luñ nu warmaal warmaal warmaal ak fuñ nu mën a teg dañuy sant yàlla rek te jéem a xool ba xam nan la ñuy bëgg na laxasaayu ba xool yooyu ñu nuy xool te wóor mën ne xoolu xooluñu mais sëñ Touba la ñuy xool te sëñ Touba ku ko xool yàlla rek nga xool bu boobaa duñ ci am jafe-jafe loolu mooy sunu problème kon nag yii ngeen di def bu jamono bi ñëwee ngeen bokk ko di ci wax di ci def seen alal seen waxtu te lépp yàlla tax loolu bu leen defee na mission la ci yéen du loo xam ne kenn dañ leen ki leen koy defloo mooy seen borom ndax yàlla kat moo moom lépp ndax euh, lu ko neex lay def loolu moom moo ko wax fu ne yërmandeem nag nee na ku ne xaj nga ci waaye ak mbugalam it ku ne xaj nga ci kon yàlla na yàlla musul bu kon bu ñu dimbalee ci loo xam ne nu nekk ci barab yi barab yi jafe kenn ku nekk defe ne kenn ku ne waroon a nekk ci sa yitte nga xam ne yaa nga bëgg am loo yóbbu sa kër sa njaboot taxawu la boo fi xasee nekk dootoo am jàmm minute bu nekk sa mbo sa sa sa mbokk wala damaa am damaa am lii damaa am laa mën na am muy doon dëgg mën naa am du doon dëgg suuf bi di tër yi lépp loo am joxe ko loolu lépp ba noppi nag nga boole ca nag li nga xam ne mooy nga nekk fi barab bi lépp lu ñu yëkkate te muy lu baax nga defe ne kenn warul ca laa ëppale mais kooku bu defee ne nitu neen la xëy na dafa dafa foofu la war a taxaw waaye xam na ne am na lu koy def loolu loolu nag ngeen xam ne kon ñun moo tax ñu def sawar kon nag saa bu ñu fi ñëwee rek dañuy gis lu ñu gën a yéem at bi weesu saa bu ñu ñëw waxoon naa ñi nga xam ne ñooy programme bi ne leen ñemewuñu toog naan fii lañ bëgg a dem ak fële lañ bëgg a ndax boo de ndax du ñun ñoo du ñun ñoo leen du du yéen nu yëkkati du yéen du ndax li leen yéen a nu yëkkati waaye ñun taxuñu leen taxuñu ngeen ngeen xoolu leen ñu la ngeen di xool mooy li leen fi indi kon nag loolu itam fii ñu toll nag ci jamono bi na ngeen góorgóorlu kenn ku ci nekk la mu nekk ci lu baax la mu nekk ci lu mu yam ca gën a sàmm xale yi xale yii ma gisit na ngeen leen dimbale ndax surtout nag ñu ëpp ci ñama ci gis ay xale yu jigéen lañu xale bu jigéen bu nekk fii nag juddoo fi yàlla def mu di fi jànge diine ba am fi lii ma di ko gis di gërëm jàngalekat yi leen di jàngal tamit parce que jàngale yombul kon ñii fi nekk ñu teg leen ci biir yar ak fii nag ñoom naqare yar ndax kat yi nga xam ne dañuy jàngale xam nañ ne yar jàngale li ci gën a am solo mooy barab bi nga koy defee li ñu tudd environnement ci jàng dafa am solo lool mooy nit ki fi mu nekk di ko def ndaxte lépp mën na ko fay fekk te lépp it fa la koy fekk kon su ngeen fexe ba jël xale yi ñu ay jigéen xale yu ndaw yu góor yi ak jigéen ngeen di leen yar ci lu demee nii ba noppi yar seen njaboot dafa mel ne loolu mooy li nga xam ne moom mission la bu leen xam ne yéen ko teg fii nag diine lislaam nag ku ko bëgg a saxal diine lislaam ku ko bëgg yóbbu fenn yow mi ko fa yóbbu yow yaa yaa war a am comportement boo xam ne mooy comportement diine waaye diine amul benn frontière ndax bari na ñu fi nekk ñoo xam ne tey am nañ lu dul jeex ci alal waaye buñ fi dajale woon fukki nit képp dëkk bi si ñi fi nekk borom ñi nekk ci réew mi seen xel du dal ndax xam nañ ne am nañ alal te jàpp nañ ne ñii la la baaxe leen yóbbu te mënoon ay jullit la ñuy tuddoo kon jullit googu nga xam ne yàlla def na ko nu am doon ko waaye jullit gu mu mënti doon nit bu àndut ak ngëm su ko tuddee ak jullit gëm googu nag mooy la rassuré ba lépp looy def nga am foo ko teg muy ci sa diggante ak sa borom looloo nag nga xam ne yàlla defal na nanu ko yàlla may na ko nga xam ne du nu jaral lii kon bu boobaa nañ ko téye bu baax bañ a dugg ci lu ñu war dugg bañ a xam xëy lu ñu lu ñu war xam bañ a seet lu ñu war seet te topp li nga xam ne mooy ndigalu yàlla diine kat yàlla moo na ko may moo na ko baaxee ndax génne ba mu génne àjjana ci loo xam ne noo ko def sànninu mën nañ faa jóge sànk di tañax tañaxi ba ëllëg mu yóbbuwaat ñëw foo ko neex te dara nekkalu ko ci ndax moo nu bind kon suñu jaglee diine wut ay yonent indi leen yonent yi ñee échec ñii échec ñu ndax échec mënta weesu ñu yónni la nga dem ci barab ñu rey la wala nga dem fa wax a wax ba sonn te taxul nga indi ñan ku mel ne Nuux alayhi salaam dem na ba far bëgg saalit sax wala mu wax ne yàlla bëggatuma ñii mën lu ma leen dara kon nit ñi nga xam ne dañuy ay nit ñu baax laxasaayu gis dem ci seen borom ba am ngërëmul seen borom wëlbati ko fexe ba nit ñañu tollool ñu nekk ak ñoom ba fexe ba jëmbat ci ñoom ngëm te luñu leen ci rey ñu leen dugalan leen ci loolu moo tax tamit loolu moo nu may lii ndax gëm képp ko ci forcé da nga am problème mooy naafeq rek nga cee jëlee kon nag nañu gën a góorlu gën a ànd gën a nekk benn gën a xam fi ñu jëm ndax nit dafa war a xam boppam ndax xam sa bopp mooy tax fu loo nekk xam ca fa nga ci jëm xam ca la nga ci bëgg muy lu baax bañ a gë bañ dem ba nag doyloo sa bopp wala nga gëm sa bopp ndax am na foo xam ne boo fa àggee ku àndut ak yow rek da ngay defe ne ay caaxaan la kon na ngeen nekk ci li ngeen nekk ñoo ngi gërëm mbooloo mi nga xam ne yëpp mooy waa euh, lii ñu fi sembit ci barab yee tamit wax nañ ko sànq defe naa ne dañoo wax ne plan yi wala wala wala wala projet bi lañ wax ne moo am luñ ci kii waaye jàpp naa ne ak fii ñu dem ci maire bi tey ñeenti at yëpp ñu di fi ñëw am na tey maire bi wax na ci boppam nee na amoon nañu dut amoon nañu daal am am tiit ci bu njëkk waaye léegi xam nañ ne ay nit ngeen loolee nag bu ko xasee am nañ téye loolu te lépp lu ñu fi bëgg nañ ko teg ci yoon woo xam ne waaye nii ma gisee ci ngeen doxale ko ci wàllu jokkaloo bi ci wàllu xale yi gën a gën a gis gën a gis yoon bi gën a gis diine ànd gi tamit ci këri diine yi tamit gën di ànd mosuñoo taxale koo sax waaye demoon nañ ba mel ne li may koy waxee rek kenn ku ne defe ne kenn te loolu du woon dara de du woon nekkul woon ci ñoom waaye ci nit ñi la woon waaye ñoom ñi xam ne ñoo seq seen seen seen seen diine mu lislaam amuñu sañ-sañu di di defante lenn wala ñu xoolante fenn budul bëtu yërmande ci seen diggante ak bëtu cofeel kon nag bu ñu demee ba gis yéen itam ngeen nekk ci ànd fu ñu fu ñu dem dañu naan ñee ay kër gee lañ bokk kër gee lañ bokk waaye liggéey ba ñuy def doo ci xàmmee ku ko doon ku ko doonul kon daal ñu ngi am bégte bu baax di leen sa di soxna yi tamit di leen gërëm bu baax ndaxte gis nañ seen bés démb ñu taxaw bu baax ci liggéey bi ñuy def yox nañ lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey dafa mel ne ñoom ak ak ñi ak ñi ñëw ci kenn du leen ci ëpp gën a doon jàmbaar kon yéen itam yàlla na yàlla sàmm li ma waxoon démb rek la ngeen gën a góorgóorlu ci seen i seen i sëy nga xam ne ñoom ngeen nekkal ci ay seeni kër seen i sëriñ ngeen gën leen a téye bu baax ñoom ñu téye leen bu baax ndax mbir mi ñoom ñaar a ko seq ñaar ñëpp yaakaar naa ne bu kenn ku nekk defee leen leen war mooy ni ma ko doon waxee rek bu fekkente li leen boole mooy diine am mënuñoo am jafe-jafe bu leen leneen boolee nag kon ni ni ko ni ñu koy waxee mooy alal wala wala ab juddu wala ab taar lépp loo xam ne looloo ko booleeg nit ci wàllu sëy tàggalikoo rek mooy ci mujj wala mujj ko dana am ay jafe-jafe ci biir waaye bu dee lu gëm-gëm ak diine nga xam ne da nga fa am looy xool tey ak ëllëg bu boobaa dara du ci nekk kon yàlla ñoom ñaar ñëpp loolu ñoo ci war a ko sàmmonte la nga xam ne nag mooy jafe-jafe biir yi nag nga xam ne yéen koy seq kenn ku ne la la war ci sa diggante ak moom boo ko sàmmee jafe-jafe ji kon loolu tamit na ngeen ko bàyyi xel góor ñi di yëgëram soxna yi soxna yi tamit di topp seen sëriñ yi bu ko defee jafe-jafe jafe am waaye bu fekkente ne tamit soxna si lu mu am euh, daal di bëgg a wane ak kilifteem ku sox sëriñ bi tamit lu koy am mu bëgg koo xool bu boobaa jafe-jafe rek day am kenn ku nekk na nga am fa nga yem te la nga seq sa morom ngeen di ko sàmmoonte kon daal ñu ngi gërëm ñëpp ngeen baal ñu àq xëy na gudd na kilifa yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax bis bi kenn moom ko ndax bi gaat mii bi ñu koy décoré dama wax ko dama wax ko sëñ man Mansour mu yebal la ma doomam ñu ànd dem parce que du du du yëfi ñëpp la jullit yëpp a ko moom kon loolu dafa nekk loo xam ne nañ ko sàmm bu baax te itam gis nañ ne moom sàmm ngeen ko kon ñi gërëm ñëpp sonn ngeen yéen ngi dëpp boobu amu leen benn wax waxtu ci seen bopp ñu jógee fu sori jël seen i kaar jël seen i oto loolu la ñu def ko bàyyi seen liggéey loolu lépp bu leen defe na lu lu dara du ci leen yal na leen ko yàlla wattil lu gën la ngeen ci am barki sëñ te may leen jàmm may ko sunu réew ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum